mbokki internet de di Midi asalaamaaleykum ñu ngi leen di baalo àq di leen ziar te di leen baal àq ci weer bu tedd bi ñu ngi fii ci Masaalikul Jinaan ci bërëb bu tedd fas yéene jox kàddu gi kilifa goo xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci yoonu murit ci ay waxtaanam ci ay njàngalem lépp jëm ci leeral ka ne Cheikhul Khadim rek tey nag day bés bu màgg mu dëppoon ndaje Cheikh Ibra ak moom Cheikhul Khadim ñu fas yéene rek jox ko kàddu gi rek mu ñu leeral guddi maam Cheikh ak it ndaje Cheikh Ibra ak Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, mu indi ay leeral ci loolu rek ñu jox ko kàddu gi bismillah bokki jullit yi di bokki taalibe yi murid yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru tedd bi ñu bokk nekk muy shahru ramadan rawatina barab bu tedd bi ñu bokk ndaje muy Masaalikul Jinaan jël nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci loxol sunu jëwri yi ñun ñëpp muy alxaaji Mbàkke yu fay représentant la xarit général des Mourides ci ndakaaru ak li ko wër mu tegal nu ko ci loxol Serigne Mountakha ibnu Cheikh Ahmadoul Bachir xarit général des Mourides yàlla na fi yàgg lool ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp di nuyu nag yi nga xamante ni tey mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf muy Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér nuyoo kon ak ziar ginnaaw buñ ci jógee nag ñu wax ni tey mooy ñaar fukki fan ci koor di bis bii nga xamante ni ci la Serigne Touba jàkkaarloo woon nag jëwriñam ju mag ja taalibeem bu mag ba murit bu mag ba muy maam Cheikh Rahma Fall baabul muridiina wal muridaati kanzu maqaama dunya wal axirati kon bis bii di ñaar fukki fan ci koor ci dëkk boobu ñu naan Mbàkke Kajoor fa la Serigne Touba jàkkaarloo nag maam Cheikh Rahma Fall waaye lam ko waxoon rek ca la nekkoon da ko ni daal man dama bëgg àgg ci yàlla sëriñ bi ni ko àgg ci yàlla day jafe na lool mu ne ko waaye man dama koy topp ba mu dugg ci sa jëmm ji te gisuma fu mu génne jaayante boobee nag moom la ñuy fàttaliku muy bis boo xamante ni ku ne xam ne ne alxuraan nee na yaa ayyuhaa lazina amanu ala adullukum ala tijaarukum tunjikum min azabun alim tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillah bi amwaalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun foofu la maam Cheikh Ibrahima Fall teg mbiram Cheikh Ibrahima Fall alim la woon jàng na téere yëpp ba way Jazbul Murid Cheikh Ibrahima afis la woon watu na téere yëpp abit la jaamukatu yàlla bu wér la woon ndax nee na boroomam moo ko ni wëral Serigne Touba jox ko say mbir kon kookee bu demee ba xam lépp am lépp man lépp juddu ci famille bu riche muy famille yu aristocrate maanaam gelwaar la woon ndax kër ndeyam njaay la ñu sant kër baayam faal lañu sant kon bu boolee jolof kajoor kooku garmi la woon moment bi mu koy def nag moo waroon a falu buur mu xam ne ànd ak yàlla rek am njëriñ keroog la gàddaay kër baayam wuti nag Serigne Touba kon nag kon Cheikh Ibrahima Fall nekkul woon ko doon taxawaalu déedéet dama ni tubaab yi ñoo ko tudde aristocratie mooy Cheikh Ibrahima Fall mu nekk noobal ci askanu kër ndey ak askanu kër Baye fanweeri dammeel ak ñett yi nga xamante ni ñoo falu Kajoor fanweeri ñaar yëpp Fall lañu sant kenn ci sant Jóob muy Lat Joor kon foofee la Cheikh Ibrahima Fall bokk ki nga xamante ni mooy askanu kër ndeyam di Jolof ku ne xam na buur ba Jolof côté yooyu la maam bu Ndiaye bàyyi ko kon maam Cheikh Ibrahima Fall noonu la mel ci judd mu nekk kon koo xamante ni wër gi mu doon wër sëriñ Touba wax na wax na ni mas naa dikk ci kër ak si soxla si ëmb doom ju góor mu xam ni doom ji Ahmadu lañ tudd mu toog fa ba mu am doom mu fekk liir bi ci kaw lal bi laaj ko ni ko yaay Ahmadu bi may seet mu ngi ko déedéet mu jaar ca poot ba dem kon ko doon wër Ahmadou ba jàkkaarloog Ahmadou kon bis bi mooy bisu daje bi nga xamante ne daje nañ ko keroog man daje nag mu mu jaayanteeg moom liggéey bi da ko ni fanweeri at lay doon Cheikh Ibrahima Fall ni ko ah, man dañ ma ko defal ñetti at kon ci ñetti at la tarbiyewu kii nga xamante ni mooy Xaadimu Rasuul ba ñëpp ba fépp ba lépp jàpp ci sëñ Touba kon Cheikh Ibrahima gor la woon ñaar fukki fan ci koor gii nag mooy fàttaliku anniversaire. bi Cheikh Ibra Fall jaayante ak sëñ Touba loole tey jii nag dem na ba koo tudd rek foo tudd sëñ Touba rek teg ci Cheikh Ibra loolu moo dal Serigne Touba ba foo ko tuddee rek boo ne xaadim rek ni rasulullahi kon nag gis nga kon loolee Serigne Touba waxoon maam Cheikh Ibra ni ko am ah, man day ki may seet ba ma ko gisul woon muy Seyduna Muhammad damay mën a waat ni asamaan mas na ko tiim waat ni suuf si mas na cee dox ma jàpp ci loolu ba am ngërëmam mu ne ko man de suma la doon wër gisuma la ñu fii mooy sa armeel danaa fa taxaw di tarbiyewu ba keroog mu am sa gërëm pastéef boobu ak pas-pas boobu moom la Cheikh Ibrahima Fall yor gane àdduna ci 1855 génn àddina ci 1830 kon 1930 kon noonu la nekkoon ak Sëñ Touba ñetti at la ko fi Sëñ Touba jiitoo ñetti fi at la ko fi Cheikh Ibrahima Fall kon bis bii nag mooy bisu jaayante ba kon nag bis boobu su ngeen ñëwee yéen bëgg nag ci waxtaan waxtaan ci ak yéen fàttali leen nag pas-pas ba ak jaayante ba loolee nag maa ngi ci soñ taalibe murid yëpp Cheikh Ibrahima Fall mës a bëgg dara lu dul sëñ Touba dem na bañ tuddee ko menn xel ndax menn xel dafa am ku ñëw nii sëriñ bi ni kooku jaay yàlla jooju yelwaan kan la am ku ko menn xel la de mu ne ko hmm, menn xel Ibra Fall xel ma man rek ca ne kooku mooy Babul Murid diina yàlla na ko yàlla fayal. ndeysaan ndeysaan eh, yaakaar na xam ne wax dëgg fa yàlla am na solo lool xanaa rek danoo gis ni moom maam Cheikh nga juddoo ci noblesse juddoo ci aristocratie teraangay àddina lépp wër la waaye nga fas yéene woon lépp gannaaw na da ngay dëdmal wuti sunu borom ci jëmm joojee di Cheikhul Khadim jamono juñ toll nii tey ban njàngat gu bees lañ mën a am ci boobu rencontre ak eh, eh, loolee nga xam ne Cheikh Ibra def na ko te yombul. ndax eh, ñu jox la àddina nga won ko gannaaw ne sama borom laay wuti yaakaar naa ne yombul kon ban jàngat gu bees lañ ci mën a jëlee rek eh, ngir nit ñi xamee ko noonu. ndax keroog bi Cheikh Amadou Lamine Bara mu Serigne Touba feeñee jamono la ko la Serigne Touba woo maam Cheikh Ibra bokk woo Cheikh bokk woo Cheikh Ibra bokk woo sëñ Mbacke Bousso bokk woo sëñ Dame Abdourahmane ñoom ñëpp mu leen ni cër bi ngeen doon wut ci yàlla liir bi gën a àdduna indaaleel na lañu ko keroog la Cheikh Ibra Fall seex ba dem na këram mu daal di bind ñetti deel jox ko Cheikh mu daal di ñetti deel yi mooy ndand ndar maa ndakaaru gannaaw ndar la wax ndand maa ndakaaru kon maa ngi dem ndar daal dikk nag Saint-Louis nga xamante ni vieille ville coloniale aux rues régulières aux maisons et serrées les unes contre les autres moo dëkk nekk capital de la woyof foofu la Cheikh Ibra nekk nekk faak nag kilifa diine yëpp Cheikh nag am na fa 16 kilomètres titre foncier mu boole tasineer gànjool ba ñëw na ndar li ëpp ci njaboot tamit fa la gane àdduna ndax tey ji tey sëriñ Abdoulaye Fall ndar fa la gane àdduna sëñ Fallou Fall taawam fa la gane àdduna ku ne xam ne ni sëriñ Assane Fall moom noonu sëñ Aliou Fall mbawoor mu yóbbu leen nag ndax ku amoon xel la ku amoon xam-xam la njabootam li ci ëpp la leen yóbbu woon école des fils de chef ñu fa doon jàng kon moom bañul jàng bañul xam-xam léegi nag lañu dem ba ñu gis ci yu kenn xamul nu mu demee ak Cheikh Ibrahima Fall ak noblesse que ndax tubaab bi wax na ko ni en le voyant venir tu sais que c'est véritable homme en le voyant partir tu sais que c'est véritable lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba kon nag kooku mu participer nag ci yoonu murit wane un exemple ndax c'est un guide éclairé un exemple mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag ci jamono jii nag war nañu mën a delluwaat ca loola ndax ku bëgg yàlla da ngay wut yàlla yàlla des koy wut ci sa alal ak sa bakkat te loolu la Cheikh Ibrahima Fall def wut na ko ci alalam ak bakkanam mel ni saaba saabatu rasul defoon muy bis boobu la maam Cheikh Ibrahima jaayante na saaba yi jaayante woon kon ku def ni Cheikh Ibrahima defoon ñu defal la li ñu defaloon Cheikh Ibrahima ndax ka ko doon joxe jógu fi kon loolu daal mooy li nga xamante ni doon naa ko ci wax ñu ñëpp ñu gën ci góorgóorlu ndax liggéeyal sëñ Tuubaa mooy mbir mi te sëñ Tuubaa dee na ku ma liggéeyal dem àjjana wax di awaay ji lisi na daamoo fi xidmatin wa ablahum maramo yàlla fajar aajo ku ma liggéeyal énergie na saari li xidmati yi fa law mu diyaaran was sa jannati yi ku ma liggéeyal tabe ajana kon noonu la ko sëñ Tuubaa waxee sëñ Bamba ku ko liggéeyal ku ko gëm ku ko liggéeyal ajjana nga jëm benn taalibe yi sëñ buy dem safara amul loolu moom nañ ci góor góorgóorlu la ca des nag moo ñu góorgóorlu nag ci pas-pas bi fexe ba lépp loo xamante ni wàllu diine la wàllu daara la ñu mën cee góorgóorlu ndax Cheikh Ibrahima Fall daa woon liggéey ak jaamu yàlla moo tax sëñ Tuubaa nag ni na nga liggéey ba defee ni doo dee xalaat yàlla ba defee ni suba ngay dee travailler comme si tu dois vivre éternellement et penser à Dieu comme si tu dois mourir kon daal Dakar Midi ñu ngi leen di sant ci turu diwaanu Masaalikul Jinaan gépp loolu leen defal waxtaan wi nag mooy Serigne Modou Mbaye Samb soldaaru Cheikh Ahmadou Bamba man mii la mbàkk yooyu fay bàyyi ci barab bi te su fi newul yaa fi ne kon bi ngeen dikkee fekk ma maa ngi leen di ziare ci turu barab bépp ziare leen ci turu taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. naka kàddu kilifa gi moom daanaka duñ ci tëggati dara waaw ah, xanaa rek fa la ñuy jaare di tàggatoo rek wax ni ne lii leen leen indiloon ci ay leeral ci guddi maam Cheikh bi ci ndaje Serigne Touba ak Cheikh ba yaakaar naa ne nag ah mbir maa ngi noonu xanaa di leen dox dig daje ci yeneen i jotaay yu mel nii wasalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu.